il faut que pour une fois je pense que ñu nekk à la hauteur à la hauteur de la dignité de Macky il faut que ñu nekk à la hauteur à la hauteur de la stature yaa ngi dégg du président Macky Sall parce que nit boo nekkee ci partem nga ne mooy sa njiit ak sa leader da nga war a wu ci valeur yi nga xam ne nii moom lay doxee et valeurs yi muy doxee mooy euh, nit boo xam ne nii il est dans l'idéal républicain il est dans le combat de la démocratie il est dans le combat du développement du pays et ngir ëllëgu réew mi ak stabilité ak ordre réew mi ñor na ko loolu nag euh, fi réew mi toll ak enjeu bi ñëpp ñoo xam ne nii ànd nañu ak moom parfois beaucoup de gens n'ont pas été à la hauteur de l'ambition du président pour le pays mm -hmm. donc l'ambition du président pour le pays c'est pas le parti c'est pas c'est pas des des clans pour ça c'est pourquoi je pense que euh, ki mu tànn mhm. et sénégalais yëpp de façon unanime euh, d'accord nañ ni euh, le choix il pouvait pas y avoir de meilleur choix je pense que aujourd'hui nous devons en tout cas tous qui ont qui croient en Macky Sall ñi ko jàppale woon le projet qu'il a pour le Sénégal et qui est un très bon projet pour le Sénégal il ne faut pas que ñu arriver à poser des actes yu indi rupture dans le processus de progrès du Sénégal. mais Amadou Ba lu ci lu ciy wàllam ci loolu noonu préserver li nga xam ne mooy l'héritage sauvegarder ko fexe ba bloc bi dara wàññi wàññeeku. alors dama jàpp ni fi mu toll nii am na ñett ñetti défi défi bu njëkk bi mooy défi président Macky Sall. pour mhm. tànn candidat bu baax. jàpp naa ne candidat bi mu tànn c'est le meilleur en tout cas dans les circonstances actuelles. donc il faut que ñu jàppale président ñun ñëpp ñu àndal président jàppale président pour que boobu muy